sa naataangoo bi waaw moom daanaka wax na lenn li man en tant que étudiant dama naan leen ñun suñuy àq ak suñuy yelleef dañ kaa salfaañi ñun étudiant ak université de Thiès buñ ñu respecté wul au moins ñu respecté quand même l'élite sénégalaise parce que depuis diggee chantier yi tàmbali ba léegi gisante nañ ak ministre bi ñun ñoo fa demoon ñun étudiants yi dégg nañu lu mu ñu wax ñun étudiants yi mais boobu ba léegi. lu a waxoon amul len luñ ci def lu olof nan deug day tingom firnde dara ca amul président Macky Sall laa bëggoon waxal directement ñun amuñu ministre président Macky Sall il faut que mu xamné ñun amuñu ministre te ça sera fatal pour lui. dafa télé. ça sera fatal pour lui ministre bi na dem bàyyi ñu au moins ñu gérer ñun suñu suñu environnement. boo amul ministre loolu am. suñu am mais mais ñun dañoo am ministre ana ministre bi. gisuñu ko non ana ministre bi. xamuñu ko ministre bi la dernière fois bamuy muy ñëw fii. ISEP la demoon bu Thiès ISEP la wax ISEP bu Thiès nga xamné ne seen construction fi la fekk euh, université de Thiès ñukay construire comme stade bu Diamniadio comme arena ak yeneen ak yeneen ñoom ñëpp commencé nañ len ba jéxal len devant leurs grands-parents kan la les éternels chantiers de l'université de Thiès. ah ah, ah, ah bi lu mu la jaral moom dem na ba ne année blanche. ñun combat bi lu mu ñu jaral bari na. combat bi lu mu ñu jaral bari na génne si année blanche certes mais aussi ñun ñu ngi si yeneen dynamique am nañ yeneen perspective yoo xamante ni day gën a dem de pire en pire et day gën a rude parce que am nañ ay stratégie xam nañ ñu defoon ba dem jam ñaajo te kenn teewuñu. Ah ñun la

D'accord. Il y a des étudiants ici. fi étudiants qui sont en ñu ngi L1 ñu ñëw ren du ma waxagum ñi nga xam ne ñoo fi jiitu parce que ñun dund nañ lii yëpp ñu ñëw ren depuis plus de 4 mois mu ñëw fexe ba tàmbali seen cours est normal est normal depuis plus de 4 mois ay étudiants yu tàggoo seen waa kër pour jàng mënuñoo fexe ba tàmbali seen cours à moins de 45 jours des examens baccalauréat est ce que c' normal mais soyons raisonnables quand même. nan ngay mën a yow nan ngay mën a yaakaaree nan ngay mën a yaakaaree si jeunes yoo xamante ni ëllëg ñoo war a teewal élite ngay wax entrepreneuriat de gauche à droite heure bu la neexee dem sikat te préparé woo sa ndaw ce sont des balivernes je il faut que quand même état bi respecte ñu étudiants yi nekk fii 200 lits rek moo nekk fii ñaari pavillon de 200 lits Thiam waxoon na ko sànq étudiants yi fanaan si salle télé que normal na bu ñu amoon lu ñu gënal nañ fanaan si salle mais bëgg jàng moo ñu fi teg il faut que ñun ñu xam ne amuñu par parloo université Thiès amuñu par parloo nekk ñu di laaj bourse nekk ñu di laaj ay restaurant yu doxul te pourtant restaurant yu doxul ñu fi lekk lu doy meew amu fi suukar amu fi pourtant laaj ñu ko parce que dañoo xam ne ñu lu ñu indi fii mooy jàng loolu bu fekkee mat na lu si des mën nañ ko sooxaale mais bu fekkee loolu matul du duñu may dara état bi la ñu wax ah dara duñu leen ko may